Euh, sëriñ bi nee na moo la waxoon ni la nanga nga wax ak président tontu ko nee na mu doyloo sa kàddu yi nga wax ndax kàddu yi rafet la waaye fekke muccul nee na daf lay dëggalal li nga wax rek moo tax mu ciy wax lii mu ciy wax nii waaw xalifa bi ne mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ne ngeen baal ko nag baatam dafa sant sal <laughs> ah. <laughs> président nee na comme dafa sant sàll daal tuwaar tuwaar kàlla ne nuyu premier ministre rek niñ ko lime woon ak kilifa yi mu àndal yëpp ne ndax ñoom ñëpp kat ne seen ànd ak moom mii yàgg na waaye masul nekk mukk ànd ànd ne nee ndax ànd ci intérêt ne digganteem ak yow la nee sa digganteeg moom xëy na mi ngi lay fàttali loo xam ne fàtte woo ko ne taxaw boo xam ni moom nga ko taxaw fa tabaarakallahu ne li dal ci sa kaw yëpp nag lu naturel la ne àdduna ku am gannaaw dinga am baatu gannaaw kon kuy fay kilifa jikkoy kilifa mooy rek président yow ni nga mas di doxale ni nga doxale ne am na jamono ci ginnaaw léeg ñaari nit di waxtaan ba kenn ki ni moroom mi lan moo ciy sa yoon mu ni ko fekkee ma ci boole ne Serigne Mansour loolu moo doon logom fekkee ma ci boole ah ah kii ah, loolu bés du ñàkk Youssou Ndour moo doon fekkee ma ci boole ah, ah sëñ Mansour mooy bés du ñàkk waaw bés bu dul ñàkk nag mooy bésu tey bii li la yëkkati mooy ku dul jeexal te nit am moom moo ko jox mooy sunu boroom tabaraka wa taala moo wax ci alquraanam man yàlla yonent bi waxal ni man yàlla nguur maa ko amee mu sax ne ma téye ko sama loxo du ko génn mukk ku neex man yàlla sàkk samp ca sama baaraam mosal la ca waaye lama la mosal boo tàqamti ko la nga ca amoon jeex na boo koy tàqamti rek jeex na ne président sëñ bine ne mi ngi sant yàlla rek nii mu la ko waxe ne seen ànd yàgg na ànd bi yàgg na ànd bi yàgg na ne loo li nga wax ci sëriñ si ñu ni simple citoyen waaw sëriñ bi keroog bi nga ñëwee comme ni ko sëñ su doon fàttali nga fàttaliku mu taxaw ca buntu kër ga keroog solul dàll neen di koo xam ni foo bokk buñ la ko laajee nga ni Sénégal citoyen nga loo gën a nit ñi nag kooku ko kenn tuddul du la naqari citoyenneté loolu obstacle la woon rek boo xam ne dañ ko sampoon ci sa kanam ne pour bëgg nga fakastaloo ko ne keroog nag moom mii mu daal di wax ni cheikh alxaaji abdul aziz ci dundam radiyallahu taala anhu daan na wax ni xanaa sudul dara it ma ñemee yëkkati nag sama làmmiñ wax sama xalaat te wax ko it ngir yàlla xanaa nag lu mu metti metti citoyen la ñi fi nekk nag ne li wala fii di wax ni kenn ku nekk xam nga këla mën ne sëriñ abdu su waxee loolu ku ko dégg mu neex la am nga chance wala nga dégg ko mu naqari la amoo chance ne ku dégg ku dégg dëgg nangu ko am nga chance néeg booba juboo nga caag yàlla waaye nag ku dégg-dégg bañ ko nag yàlla lay dab dootoo taxaw mukk léegi nag ne sant yàlla rek président moo ci des ne fukki at ñaar nekkul fukki waxtoog ñaar nga nekk ko fi ànd ñi nga àndal kenn ku nekk am nu mu mel am xalaat am gis-gisam di ko xoole di ko waxe waaye nga ànd ak ñoom rek ba bésu yàlla tey jii yàlla lu ne sàkkal na ko dayo mu ni woon fii lay yam tey fi la ko yàlla di yamale su ko defee nag mën na wax ni daal ñi fi daje ñëpp ay mbokk lañu mën nga wax abdu mbaw mi léegi ni ko gisuma la ci investissement yi lu tax bokkoo ci en ci candidat yi waaw di ko tooñ ne boo dee wax ñu defaral la kees nga dëpp ci di ci taxaw <laughs> ah daf koy tooñ <laughs> ndax dafa njool ndax nit ñi di la gis nga leen di gis mu ndeysaan neex jàkkaarloo ki ngay waxal am na solo ah loolu nag junj la Ablaye Daouda Diallo fa tabarakallahu moom mi itam amaan amoon naa moom diggante am naa moom diggante ndakam jële ca Paris di consul du teg tànkam ca France mukk ca Paris te njëkkuma dem seeti ko ca fa mu nekk wala ma dem ca ambassade ba ne ñoom ñëpp ndax nit su wàccee ci barab am fa nattu ne kamu yaakaar ni moom moo ko war a wallu war na yëg ni wàcc na ci réew ma ba tax na ne seen taxawaay ne ñoom ñii du umpaleeg ñoom du umpaleeg ñoom ne ba ma demee fekk fa Awa Diop waxtaan na ak ñoom ca France wax leen fi ñu war a teg seen tànk te ci kilifa nan la war a jiite nan la war a doxale dafa am njaboot ku am njaboot am lu la naqari waaye njaboot ba mucc ca te amoo lu la naqari ne boobaa njaboot ga duñu njaboot ne ak premier ministre Amadou Ba ne amaduba Ba mi yàgg nañu lool ne premier ministre sa jur sa lépp nee na yàgg ngeen trop ne yàgg ngeen lool ne moom xamante naag yow bu baax a baax ci jaar-jaar yu baax a baax ne jaar ngeen fu bare fu rafet ne ku ci nekk nag ne fa mu doon mu taxaw la fa moom daal nee na noonu la koy waxitam itam ci doomam jooju di ministre de l'intérieur Antoine tabarakallahu Antoine Diome fa tabarakallahu <laughs> nee na moom daal fekk na ay waa këram gañe ko ci moom <laughs> ndax li muy digaaleeg waa këram ay waa këram njabootam di ko digaaleeg njabootam njabootu kër gi ne loolu daal lu rëy la ne loolu daal bett na ko sax ndax xalaatu ko woon waaye terewul nag li maam Seydil Hadj Malick rakam ju baax ji wax léegi rek ni wax ni nit bu la yéenee lu ne jaratul tàllal loxo eh, su boobaa da koy lajar rek ne daal mi ngi sant ci li passé yépp wax na la léegi ci Diouf saar ne la Diouf Sarr mii ñoo bokk baay sunuy baay ma suñoo taqalikoo ne waayam ji toogit di Abdou Mbaw itam ne moom itam dafa ñëwoon fii ànd ak baayam bu ndaw ñëw bay dem baayam ni ko sëriñ Abdou Dey ngi fii sëriñ Mbaye ngi fii ci biir kër gi mu ni ko doo fa jaar ndax duma fa jaar ndax yëkkatiwu ma mu dem ca ngoon samu dellusi mu ñëw ñu ni ko sëriñ Baye ngi ci biir sëriñ Abdoo ngi ci mbaar mi mu ni taxu moo ma woon sëriñ bay moo tax a jog loolu nag la ko waral maamam ak sa mbàppa ñoo daan wéttalante di waxtaan ba guddi masul dog bàjjanam moo daan fóot yére papaam foof ci Cees ca Cees ne sam papa ko amee moom daal muy ak bokk rek bu doon dox di dox rekk ne daal dafa bëgg wax rek ni gërëm na ñëpp ne président yow nag ni nga def nag liggéey ci réew mi ne ba sopp liggéey boobu nag ñu war koo continuer ne sa xel war naa dal ne yow mii day kenn mënulaa tuumaal joxañ la baaraam ne moom bii day wax dëgg yàlla ni mu xamee sa mbaax ak sa jub ak sa mën a liggéey du la tuum du la joxoñ baram du déedéet ndax démb la nag démb rek benn nit dafa ñëw fii seet si ko ni ko gëj nga dégg Ablaye Seni Sall Ablaye Sali sàll ma ni ko déedéet gaju nga ko dégg daf ma fekk fii fekk may def Fuuta muy war a dem Fuuta Abdoulaye Sali Sall ni ko président moo ma yebal nee naa ñëw ànd ak yow ba ba ngay wàññeeku ma ni ko ci condition wu bu ñu demee fenn nit ña am te loo leen wax ñu def ko ba ma fe ak dóore bu mu fa am bul ba bu fa amee bu amee rek nga daal di wàññeeku ma ni ko man nag protocole ba ak dóore bëgguma ko léeg nga dugg ci mbooloo ne fekk fa nit koo xam ni moo la fa gën fuuf ca yàlla waaye fekk booba kooka kat yére ba gàtt na mbu ma kanam ga rafetul waaye nag waayu yàlla la comme moom ñu ñëpp mënoo leen xàmmee bàyyi leen ñu rax ci mbooloo mi rek nga teral leen bu ñu raxee ci mbooloo mi muy barkeel mbooloo mi ñuy barkeel mbooloo mi ne Seydi Hadj Malick mii nag li mu wax di wax fi ma jaar ak moom ne Maodo dafay rakkam ba pare it nangul ko nangoo nekk rakkam nekk sëriñam nekk doomu sëriñam nekk it sëtu sëriñam ñoom ñëpp loolu la leen di wax benn kàddu boobu képp koo xam ni bokk nga ci Seydi Hadj Malick fu ma la fekk ne dafa yëg ni dafa fekk kilifaam ne maam Seydi xaaj Malick radiyallahu anhu dafa daan wax naan ne bu ma dogale dara dara dara ci li ma yàlla may bu leen ma xeebal dara it ci lima yàlla may ba mu jaral ngeen di ko topp di ko gëstu yàlla ci boppam mooy maye te lu ko neex mu may la li ma am nag yàlla ma ko may mooma ci tegal loxo boppam boole maag loola di wattu loolu ko nit am fa teraanga ci seen maam seen barke maam ne liggéey bi rëy liggéey bi rëy na liggéey bi rëy na bërki démb rek mi ngi wax rek ne mu ni Seydi Hadj day seppi na li yàlla santaane fexe ba benn nit bu ko fekkee benn bés daa ko def ba mu am àdduna ak alaxira ne salaatu ala nabi yàlla moo ko santaane ne Seydil Xaaji Malik ci rafetalam ak mbaaxam mu daal di ñu ñuy wax burdu burdu boobu nag ne burdu liñ ciy jàng yëpp ay salaatu rek la loolu burdu boobu benn jaamu yàlla bu am xam-xam moo ko def ci yenen bi salaay salaam te bokk nag li wax mu bokk ca la mu wax ni maa ngi ñaan yàlla bi mu bindee li mu bind ak ba mu ko bindagul avant et pendant et après ne yooyu yëpp benn salaatu ci benn jataay ne xam nga Seydi Hadj Malick Mouhamadul Busri di wax ni maa awjadallahu maaduman wa awada mawjudan duuman salaatan dawaaman salaatan laysa tan xasiru ne ku may benn chance nga def ko ci yonent bi te muy obligatoire waaw waaw salaatu ala nabi obligatoire la ci julit loolu nag yàlla defal ñu tawfiq ñu di ko wax fukki guddi yàlla baax na baax goo xam ni ne du da du mën a gàntu loolu yëpp déedéet du gàntu yooyu yëpp nag yàlla mbaaxam ëpp na loolu defaru yàlla pexe yàqu pexe yàqu ko déedéet defaru yàlla pexe yàqu ko wala bare na ñu am bara bare loo xam jë ne jëfu yàlla daal dara yàqu ko ne jëfu yàlla yàllaa koy defar yàlla nag kenn gënu koo bëgg boppam waaye ñun daal ñooy am lu ñu manqué rek ci yàlla di wax ni wa ma qadara allahu xaqa qadrihi wa ma qadarullah xaqa qadrihi mooy ba léegi rek li war ci diggante yàlla jaamam joxaguñ ko yàlla te yàlla bëgg ko bay soxla na lool lool kon nag nguur ak yàllaam ba dafa nangul yàllaam ba ku ko nangul yàlla nangul la ku nangul yàlla yàllaam bàyyi ko mu yàllay kese def yàlla muy kenn bàyyi ko nangu nit lu fi am yàlla la loolu de ku ko def foog foo jaar juboog yàlla waaw yàlla moom ku ko bàyyi li mu moom nangul ko ku ko bennal ku ko bennal ni yàlla kenn la daal di cay lënkaleeg turu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fusion julli ci ne bu boobaa daal tabaarakallahu kenn moomatu yàllaa ko moom ak yow mi ko wax bu boobaa nag foo jaar jiboog yàlla yàlla nañ ko yàlla defal amiin ne président nee na mi ngi guddal waaye li mu doon wax yëpp daf doon daaneele rek ci li nga wax nee na mu lay ñaanal itam sa gannaaw ni nga ko waxee rek ne alxaaji Mansour mi toog ne doomam la ci baayam jarbaatam la ci yaayam baayam nag ci loxoom laa jaar mooy li Seydi Hadj Malick Maodo mi doon nettali ci moom rek ne baayam moo ko wax ni ko ani tafaa ma ni nga fa mu ni ma lu ngeen bokk ma ni ko sama mag la mu ni ma déedéet du sa mag rek de boo demee bu la nee wutal ma paaka daal di koy daas ba mu ñaw daal di koy jox ko sa digg gannaaw mu dagg sa seel te ci di xëcc bul yëg yëg ni mukk li mu lay def metti na toppal ci gannaawam rek waa toppat ci gannaawam rek waaw ne sëñ Moustapha nag tabaarakallahu yal na yàlla yokk leeram amin moom moo doon léppam moo doon protecteur am moo doon protège am moo doon léppam moo góor gi alxaaji Peder Diop ñoom ñaar ñooñu daan na tax kenn daw ko laal alaaji Peder Diop ne doomam nettali na ko ni ni ko baayam nee na dafa toog ay nit di añ mu jékki-jékki rek dóor loxoom ci bool bi mu doon añe ne bool bi dafa tëb ba ca kaw këpp ne loolu alxaaji Seydou Diop bu alxaaji Peedar moo ko ko nettali mag ñi laaj ko ni ko waaw Peedar lu tax nga def li nga def mu ni dama leen di wan ni fii ak dina am xew-xew boo xam ni ku ko fekkee bu ci yàlla musalul li nga bëgg yëpp dana yàqu laa ilaha illallah waaw góor gi alxaaji Peedar borom yëf la woon alxaaji Peedar xaaj Seydou Nourou Tall ak mag ñu baax ñooñu waaw kuy nettali seen affaire du jeex mukk premier ministre sa papa nee mi ngi ngeen baal ko àq mi ngi lay ñaanal yàlla loolu ko président sant ci yow pour mu ñaanal la pour gannaawam ne mi ngi la ci ñaanal yàlla bu baax ndax liggéey boobu nga xam ni président mi ngi koy liggéey ne ñaan gi benn gënu cee foor bila la Maodo ñaanal wax ni foo jëm yàlla na la fa yàlla jiitu amin ne nga defal la ko nang ko bëgge te barkeel sa gannaaw itam yow itam ne yàlla rek amul gannaaw waaye ku dul yàlla rek di nga am gannaaw waaw kon président sa gannaaw fa nga jëm yàlla la fa yàlla gunge lii nga fi bàyyi itam yàlla na ko yàlla jàppale ne kii nga xam ni moom nga xalaatal ëllëg pour mu toog fi muy Amadou Ba la premier ministre ne mën na wax ni président futur président ah dëgg la futur président futur président ne mën na wax tey ni Amadou Ba futur président ah ci altine tey jii talu burdu bi ci weeru gàmm gi ci guddi gii ne moom daal li mu lay wax nii li tax mu wax la ko xam na la bu yàgg waaw nee na ñoom Maxtaar Siise mu ànd moom ñoo ma ñoom mu xam ko ca domaine ne di ko fa fekk ñuy jëflante di waxtaan di weccoo xalaat waaye ne mësul dugg mukk ci mbiru jàmbur ne booba daal la ñu seq la ñuy wax rek lañuy wax mu jeex waaye leneen lu dul loolu mënu cee dugg réew mi nag réewum yàlla la ne te jaam yi fi nekk nag njabootu yàlla lañu bu ca yàlla tànnee kenn ci doon tànn kenn dafay seet waaw ka ëpp njariñam ca jaam yi mu tànn kooka yàlla moom noonu lay doxale alxalqu kulluhum iyaalullah mbindeef yépp njabootu yàlla lañu yàlla bëgg na ku leen toppatoo di leen bàyyi xel tabaarakallah moom mii nag di Amadou Ba fas yéene taxaw ci kanamu jaam yu wuutule ci ñoom yal na la yàlla samp ba boo fi nekkee dara bañ fi yàqu li ci nekk li fi nekk dara bañ cee yàqu lépp jëm kanam ci réew mi incha allah li ñuy wax Sénégal émergent yal na yàlla def mu gën a émergent ci sa loxo commencé woon nga ko commencé nga ko doxal nga ko ba ñu koy yaakaar ci moom yal na ko ci yàlla jàppale ndax su boobaa suñu njariñ la ñun ñëpp mi ngi leen di jéggalu nag <laughs> nee na kàddu yi bare na nee na wax ji bare na nee Maodo sëriñ Maodo rakkam moom la joxoon mu war a wax nee na waaye nag bi mu waxee nag moo ko moo ko influencé nag moo ko moo ko yëngal waaw moo tax mu wax ne moom daf ko waxoon rek ni ko man ko duma wax yow ba nga ñëwee ci centenaire Seydi Hadj Malick keroog moo wax keroog moo wax ak yow te la mu waxoon ak yow bala nga xam ni dëgg la moom rek la répété waat wax jooju masul changé ba tey ngeen jéem a ànd ne li fi des ngeen ànd jiboo jàmm ju dul jeex ju doy jàmm alalu yàlla la te mooy yéene jaam yi yal na yàlla jàppale leen ba jàmm jooju dellu si fii senegalu dem ga dellu si waat léeg-léeg nit di yëngu ci loo xam ni du ci am lu ca bëgg waaye derem dina ci yàqu te aajom du faju noo yooyu yëpp nag yàlla nañ ci yàlla musal jërë ngeen jëf yàlla ñu yàlla musal ci loolu amadu ne mi ngi lay sant la dénk njaboot gi dénk njaboot gi yàlla li muy bañ nag toog ci kanamu jaami ni yaa gën loolu moom yàlla bëgg ko nanga góor góorlu liggéeyal sa bopp ca yàlla jaarale ko ci doomu aadama yi yàlla moom kenn mënu ko jox loxo waaye mën nga jël sa xol mën nga jëf ba sa jëf a dëppoo ak ndigalam yàlla na ko yàlla yombal amin yàlla bu kersa am yàlla bu dara jafe lu war a am yàlla na ko yàlla yombal amin jàmm am fi sutura am fi liggéey am fi ñëpp dund ñëpp dund ñëpp dund yàlla kontaan ci ñëpp gërëm njiit yi ne mi ngi leen di gërëm ñoom ñëpp mi ngi lay gërëm di gërëm Abdoulaye Daouda Diallo ne ne préfet Mouhamadou Gueye Male waaw nee na moom moomu bu raar la nit ku raar la ne jikko moom lay jëflanteeg ñëpp ne jiko jikko moo ca yàlla ñaan yàlla ak gouverneur am bu baax bari di Alioune Badara mbeng moom itam mi ngi lay yëgal ni nit ku raar la mi ngi lay wax ni yàlla na ko yàlla jàppale moom gouverneur ne ci gàmmu gi ne xaaruñu ba ñu sollicité leen ñoom ñoo ñëw sollicité ñu am volonté def ci lu nekk fa tabarakallahu barki démb ñëw nañ fi di seet si installation yi assainissement beeg ak ye ci éclairage beeg yëpp yëpp seet si nañ ko ne mu ànd ak Amadou Ba Amadou Gueye jiite ko ànd ak gouverneur ak ñoo àndandoo ak nee na doomam ju baax jële di le député maire Alxaaji Demba Diop si Diop si moom nga xam ni moom tabaarakallahu ci mbaax ak ci bëgg dëkk bi te booba nekkul maire moom moo jiite woon affaire bi tabaarakallahu moom daal bu ko toppee nee na mu gën a yàgg waaye mi ngi sant mi ngi gërëm nee daal yàlla bu mu nekk sunu mujj gise yàlla nañu yàlla wane la waat ñu gise waat ci jàmm ak sutura ak teraanga moom lañu xam moom lañu am moom lañu mas di jëflante yal na ko yàlla yokk saxal amin bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu nekk autorité ci dëkk bi nekk ci dëkk bi jëpp fa tabarakallahu ne tàllal nañu seen loxo pour ñëpp Antoine sa papa nee na ne Antoine itam du fi fanaan waaye dina fi yendu dina fi guddee kay wa dina koy téléphoné dina fi teel a xëyit kay waaw waaw loolu day loolu moom nee na lu nekk loxo ma nga ca biir ne yàlla na la yàlla saxal Ablaye Daouda ah loolu nag moom xaal pulaar la yo àlla bay di jàmm ne yàlla na yàlla yokk jàmm <laughs> président boobu moom président <laughs> Amadou ñoom koy mën a <laughs> yàlla ne yàlla na yàlla yokk suture yàlla na yàlla def jàmm yal na yàlla yokk sutura yal yàlla yokk jàmm xel mi a sel cellal waaw cellal wér gu yaram <laughs> yal na yàlla yokk wér yaram waaye ne cel se daf daan wax ni yàlla suureen yal na yàlla suturaal waa Thierno Saïd Nooru moo daan wax loolu ndeysaan ndeysaan ah tabaarakallahu waa Pape Youssou Diop mii mu ma doon wax sànq ne yaa ko jële fa mu nekkoon yóbbu ko Maroc ba mu commencé di jóge Maroc di ñëw ñëpp di ko gërëm yàlla na sax ca loola yàlla bu mu am déception yàlla bu mu kenn yàlla na ko yàlla jàppale bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf bokk mhm. Mhm. Mhm. dëgg la waaw Bab Abdou doomu xalifa bi la dafa nekk ca New York moo nekk ca BHS bi sëriñ bi demee sëriñ Mansour da baax demee 17 yaramam ca New York daf ko jël en charge ànd ak moom wan ko ni ko tey yaay sama baay doo génne sa poche doo def dara moom ak euh, Rachid Haruna Rachid Ñang euh, tabaarakallahu waaw moo ànd ak moom defal ko lépp taxawu ko fayal ko ne moom barki démb la ñibbisi mooma yóbbu waaw sëriñ bi nee na moom itam day mi ngi lay wax ni barki démb la jóge ci tukki président moo ko yóbbu woon ne itam président mi ngi lay sant ci tukki boobu nga xam ni yaa jël en charge léppam yóbbu ko taxaw ko mu yore bu ñu wéree wala ñu tane yal na la ko yàlla taf mu yokkal la teraanga ak muy sutura sa gannaaw muy jàmm yal na ko yàlla def tabaarakallah